messieurs les ministres ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu collègue député yi fii teew yëpp li ñu fi dajalee loi d'amnistie la loi d'amnistie nag mooy charte boo xam ne bii yitte bi muy dox mooy indi njëggal ak bale ci biir askan wi bu ñu xoolee ci senegal ki nga xam ne bii moo yor mébét bi maanaam ki nekk cuggal coggal guyam mooy président de la République ndax moom la constitution may moom kese muy càppaacolu ci wàll wi mu mën koo mën a indi te mu am fu mu ko sukkandiku ci constitution bi àdduna bi yëpp wërngal képp saay yu su loi bi mel nii ñëwee indi na jiixi jaaxa mosul am foo xam ne fii nit yi dañuy def unanimité ci wàllu loi d'amnistie amul fenn et dëkk yëpp boo fa jaaree ñàkkoon a njëkk Afrique du Sud bay ñuy waxee Rwanda ak feneen ak feneen ak feneen ñii ànd nañ ak moom ñii ànd ñu ko moom ñii àndul ak moom nag sax dañoo wax ni loi si dafay violer le droit international am na ñu wax ni dafay anonymiser te dafay virtuel day tax doot kenn dootul jëmmal ñi nga xam ne bi ñoo def yenn njombe yi maanaam lu jëm ci ay crime wala ñu wax ni dafay criminaliser ay innocent maanaam koo xam ni kii deful ba mu nangoo dugg ci loo dem ni si jàpp nañ ni dañu mën nañ jàpp ni kii dafa borom njombe la woon wala muy yokk ñàkk mbañante ci biir askan wi walla muy tere muy indi lu ñuy wax l'effet dissuasif de l'exemplarité lii lépp bu dajee li mu mooy fii ci Sénégal dañoo toog ki ñu ko may moom mu ne moom mooy indi une loi d'amnistie ñan ñoo mën a am njariñ ci loi d'amnistie bi victime dama ciy dem rapidement dañoo wax ni manifestant yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci cas bi moom la wax les victimes victime nag boo ko indee mën nañ leen xaaj ay pàcc yu bëri victime direct victime collatérale victime direct kii dafa ñàkk bakkena kii dafa gaañu kii dafa yàqule ñooñu ñëpp ay victime lañu et victime collatérale mooy ki nga xam ne moom jotewul ak manifestation dara tey njombe dal ko ci mu am naqar bu mu ci mën a jëlee damaa dégg suñu collègues yu bari tey jii ñu wax ne bu ñu fàtte les victimes ma wax ne les victimes ñun la parce que ñun ñoo xam seen i tur ñun ñoo xam seen i njaboot ñun ñoo xam seen i wayjur seen turu papa seen turu yaay seen turu jabar seen turu doom ñoo xam fi ñuy liggéeyee ñoo xam ban métier lañu ñun ñoo xam seen i avocat

tey monsieur le monsieur le président de la République bu ne jël initiative am moom ci boppam ñun laajuñu ko mu ne dafay indi loi d'amnistie mais man du ma ko ne déedéet du ma ko ne déedéet ndax moom la ko constitution may bu ñu bëggee loi d'amnistie ba dañ ci réew mi dañuy indi fii dindi suñu code constitution ne dañ ko ciy dind kooku su boobaa kenn amatul sañ-sañu wax ci loi d'amnistie ko loolu nag mën nañ cee liggéey suñu noppee en attendant madame le ministre dafa am dañoo produire livre blanc wax ni ay coupable ñi ngi nii ñii dañoo rey nit fii taxaw nañ sax ne ñun ñoo ñun ñi dee ñun ñoo leen rey am ñu taxaw ne ñun rey ñu alkaati moo rey wala gendarme moo rey victime yi bu ñu leen joxee tur jox leen jëmm ba noppi te ñu mën leen a lim te xam leen ñun ñu mën leen a lim te xam leen laa wax bu kenn mbubboowoo ki takk bracelet parce que ñu jàpp ko du ngeen seeni mbokk doo mbokkam waa ñoom ñëpp bu ñu defee réquisitoire ba ne xam ne leen ba noppi qu'est-ce qu'on fait maanaam li préoccupation fondamentale bi ñu am bi mën a yóbbu suñu conviction mooy ñu wax ñu ndax yor ngànnaay ak boor bu mu mën bokk Birame Souleye bu yoree ngànnaay ñu gis ñu yor na ngànnaay loi si bi ndax day muccal Birame Souleye waaw wala déet mooy suñu préoccupation fondamentale de quelque bord que ce soit ki wàcce ba kenn ku torturé ku def acte dégradant suñu question mooy ndax loi bi ni muy mëdde li ñaaw téléphone yooyu ba tax ne nañ jubóo day mëdd seen jëf yooyu mooy suñu question bu suñu xel dalee ci loolu parce que moom la njaboot yi laajte moom la mbokk yi laajte moom la mbedd mi laajte moom la avocat yi laajte moom la experts yi laajte ñenn ñi buñ ci amee tontu bu leer ànd ak yéen ci voté parce que su boobaa man sama xel bu leeree ma voté loi